auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi képp ku fi toog fii góor jigéen mag ndaw ku ci ne ci sa tur ak ci sa sant nuyu bëgg gën a tedd may jiital ci nuyoo bi nag monsieur le ministre d'État Mbaye Ndiaye sama càmmiñ sama xarit sama cëslaay monsieur le ministre de la santé Diouf Sarr ma sœur di sama madame la ministre de l'élevage madame Aminata Niang Ndiaye suñu Chaming, suñu Andendo, monsieur le maire Alundoy. monsieur le préfet de Dakar les honorables députés ici présents les honorables députés que ce soit des femmes ou des hommes les membres du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, toutes les militantes de l'APR et les militantes de Benno Bokiyakar, Yaakaar ndey Sali man si ginnaaw tey kontaan xam nga li tax man soo baxé ma ànd yow so ma yow ma yow nga li tax ngay sama mbokk di sama mbokk deret ngay sama mbokk sa jëkkër di sama mbokk di sama mbokk deret di doomu bur may doomu bur ñu bokk kadior bokk bawal mu bokk ak sama saliman kon day sali man si gina ndax keroog ba nga tegee sa tank sama kër nga jëkk tek tank na ñaanal ni jig la ni jig ndax fi nga commencé lu man mako ko wax ñëpp wax nañ ko neena mu mosu am ku gis na ne nen a xam nga kenn momul kenn neena bu baxul won bu mënul won bu deful woon ma and ak mom waye dafa def te limu def moy li ko de la république sant président de la république neena nga yaatal te yaatal nga bayiwulo kenn

lii la ñu sant ñu yaatal yaatal géew bi boole ci waa APR boole ci waa Bennoo boole ci képp koo xam ne femme de développement nga te ngay def wax ji sax duma ko guddal li nit ñëpp gis li ñëpp wax mooy dëgg bu ki na lan mooy dëgg mu ne li li ñëpp wax li ñëpp wax mooy yaa ngi liggéey yaa ngi teg sa tànk fi la ko président de la république sant yan na la yàlla jàppale yan na la yàlla yiir yalla yalla yàlla sa liggey fu soute sa njort ci allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallam